mbokku téléspectateurs yi ñuy seetaan à travers Equivox TV nuyu nañ leen di am mbégte nag di jàkkaarloo ak yéen saa su nekk ci seen journal de l'arène mais à chaque fois ngi ciy ànd ak sama góor euh, Babacar Babacar nuyu naa la. maa ngi lay fay soxna ci loo nekk. maa ngi sant yàlla waaw affaire de bad boy nga indi def sa jaune def sa <laughs> t-shirt booy doole lañ koy wax sax dafa mel ni. <laughs> bad boy non xam naa nag moom bad boy boobu est-ce boy la ba daal xam naa. non non bad boy mais affaire de bad boy nga def tey. t-shirt nii nii. nii ah, <laughs> waaw ah, waaw kon maa ngi nuyu. téléspectateurs yi di leen ñaanal jàmm di ko saako si ñoom. te set bi nag waa Petersen rek comme ni ma ko ko xamee maa ngi ñoom. rek xam nga xeetu jeex Cheikh moo fi jaar maa ngi koy nuyu di nuyu waa Petersen mhm. bu Mod Lama. Mhm. xam nga Mor Diouf. yi nekk Petersen yëpp daal ak Abdou Sakho tamit du ma ko fàtte ñoom ñu maa ngi. HLM naka nga fay dem. HLM ci Omar Tawa moom foog nga dugg fa. non HLM daa fa dugg Omar ah. Tawa ak Moussa ñooñu kenn day ñoom. sama bopp moo tax may wax de HLM. pour yow ah non dama lay yóbbu ci yow dama lay yóbbu ci Omar Tawa dama lay yóbbu ci Omar Tawa dama lay wan Moussa. <laughs> kon baax na incha allah voilà mbokk téléspectateurs yi dem seetaan revue des titres daal di del si waat. asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum wa rahmatullah lundi 19 avril 2021 dañu ñëw ak yéen ci yëglikaay suñu lamb la ñuy xëy tey dooreete ko. yëglikaay ba rek tey xëta mu njëkk lam ca xëy fasaliti bokk na ci Ama balde ak Modou Lo combat ba daal la xëy nu xamal moom sunu làmb ne fi mu nekk nii day léegi Nicolas mu ko tëgg daal sensé na la nga xam ne nii moom moo di ay doxalin wala boog ay plan daal lig soppi na ko yëglekaay baa xëy tey wax nu ko Moodu Ama nag promoteur ba daal ci li nu sunu làmb wax moom maanaam li mu gis mooy mois de décembre daal la ñu fas yéene nag tëgg boobu combat maanaam ñaari mbër ya bëre waaye bëri ji ko Gàmbi moom daa mel ni mbir moom moom dàq nañ ko la tax nag bëre décembre ba yëglekaay ba jàngatal nañu ko xamal nañu daal li ko indi mooy boo xoolee de juillet ab boo xam ne boobu làmb la nekkatu fi moo xam boobu samedi la wala boobu dimanche te itam boobu combat ba gis na koo tëg ci bis boo xam ne bis boo xam ne daal bis bu rëy rëy lay doon moo tax daal mel ni kon boobu combat soo bëggee dégg dëgg sunu làmb mu ngi nuy xamal ne daal loo ci mën a dégg daal mois de décembre léegi nag ca lañ ko fas yéenee def biram ñu ngi moom la mu xëy xamle ca biir yëglekaay bi na xaw ma mois de décembre wala janvier waaye jàpp na ne moom combat bi balaa ci face à face amati maanaam ñu di toog di wax ñaari mbër yi moom wala ñoom ñu cay demati dañ koo régulariser ba pare ne na su lii amul moom jàkkaarloo dootul am Abdou Bakhoum itam mel ni ku koy tontu nekko ko loo ci mën a dégg yow biram yàgg sa mbër daa mel ni fi mu nekk nii moom bëreeg Modou Lo wala bëreeg Ama Baldé ngeen waxut dara fu ngeen di jaar daal ba génn ci mbir yi ngeen di def fi mu nekk nii te loolu ngeen di wane boobu ba tey waaye jàpp na ne leen daal sëpp la wala boog aw xob la la ko dugal ca pax ma du ko ca génne de loolu leen Abdou Bakhoum wax maanaam bëgg bëre bañ bëre yëglikaay bi moo xëy tey dalal ko moom tamit mu wax lu mel ni ki noonu ba tey ca mois de décembre ba nga xam ne ca lañ jàpp ko ba moom Abdou Bakhoum tamit xëy na xam le daal li am ba des daal ne na ñoom loo ci mën a dégg ñu ngi toog di déglu promoteur bi bu ñëwee tamit waxtaan ak ñoom ci loo xam ne lu tege ci aw yoon la yenu maanaa itam su keroogee rogee dañuy ànd ak moom gunge ko ci la nga xam ne moom la bëgg keneen koo xam ne ni moom la mu bëgg fi mu nekk nii wane na ko ba mu nga ca mooy Gaston Mbengue ak la nga xam ne mu koy def combat yoo xam ne yu mag a mag la yëglikaay bi xëy na tey nag seq moom wax maanaam Gaston daal la mu xëy xam ne daal nee na combat bi nga xam ne taxawal na góor ki dem mu dox ci diggante booy Niang ak Balla gay nee na ñoom ñaari mbër yi daal loo ci mën dégg daal nee na moom Gaston sax moo fayatul mbër téeméeri million maanaam ku ci ne daal fay na la nga xam ne nii moom nga am Balla Gaye daal la mu jàpp moom Gaston nee na fay na ko loo xam ne daal xaalis la waaye matul cent millions booy Niang tamit nee na fay naa ko loo xam ne mosu koo fayeeku ci carrière am am na keneen koo xam ne nii daal jamono jooja mu ngay pis père yaayu Gaston Mbengue wala mu ngay wax ak moom di ko pis ay bët muy rëg-rëg la mu xëy xamle daal moom gason la interpellé nee na ko fi mu nekk ni nag ginnaaw bi nga taxawee la boobu combat muy Boy Niang ak Balla la nga ca a teg mooy sama diggante ak Bombardier rëg daal nee na ko fi mu nekk nii lu ma am loolu moo ma ko gënal jox ma ki nga xam ne nii moom moo di rëg bombar Bombardier ma defante ak moom loolu wax yi rëg-rëg la ci sunu làmb ba tey yëglekaay bi des na ci mbiri Gaston Mbengue ak la nga xam ne ni mooy ay datam mu mel ni ki nag le 26 join ba nga xam ne nii daal fi mu nekk ni ca lañ jàppoon Bombardier ak Balla Gaye loola moom toxu na léegi la ca fas yéenee am mooy ka nga xam ne moo di Moussa Ndoye ak ka nga xam ne moo di Sa Thiès ak Pakala yëglikaay ba moo xëy wax nu ko am na ñoo xam ne nii moom bu doon dañuy julla teggi nanu ab dëkk wala boog ñu perte muy Gris Bordeaux ak Balla gay ginnaaw ba combat booy Niang taxawee maanaam diggante boo Niang ak nga xam ne moo di Balla kon ñaar ñi perte boog yëglikaay bi xëy wax nu ko moom moo di Eumeu seen ak ka nga xam ne moo di giri Bordeaux ndax ñoom ñaar ñi ku ci ne ñu ngi doon xalaat sa diggante ak Balla boo xool fi diggante Balla ak Gris ñu ne déet ne waay ëmba seen bëre ba pare ñuy wax digganteem ak Balla waaye daa mel ni ki nag ñoom ñaar daal soo bëggee dégg-dëgg Balla Gaye romb na leen demu yoonam maanaam daal jëli na la nga xam ne nii moom moo dem adversaire di ka nga xam ne moom moo di Boy Niang yëglikaay ba moo xëy ñëw tey wax nu ko ba tey ca tuusi yëglikaay ba booy Niang ak Balla coow laa nga ne gadd sunu làmb te dara commencé gul Abdou Kandji ku ne xam na ko ne moo yor Boy Niang keneen nag moo ko gunge indi ko kër Gaston Mbengue yëglikaay bi ne nag Aziz Ndiaye moom commencé na moom tamit di wax ak ñoom ba la ca des tamit Aziz yamu ca de keneen tamit moom moo encadré Balla dal di ko andi mel ni ki nag kon kanji ak assis ku ci ne daal yaa bootoon sa bër andi ko mu dal di def si la nga xam ne ni moom moo di ab signature ba tey bu nu continuer ci yëglikaay bi di sunu làmb ka nga xam ne ni moom moo di bira seen wala boog ka nga xam ne moom moo njiital làmb ji ñu xëy wan nu ko ci xëtam mu njëkk moom yëglikaay bi ci aw photo bira nag moom la mu xëy di xam le daal dana maanaam fi mu nekk ni daal ci toj ya nga xam ne ak yàqate ya amoon ca arène ba lenn loo xam ne nii daal ay sanction la yoo xam ne dàq nañ ko jëm ci la nga xam ne nii ñoom ñoo di ñee jëf-jëf jooja ne na amul dara loo xam ne ni daal ñoom daal lu mu mënti doon nanu ko xaar te xam ne lu ne mën naa wàcc ci seen kaw ginnaaw ba mu dalalee nag seen président école ak école da ya nga xam ne ca mbër yooya daal di nekk buñ fa jógee dellu record record moom xëy na ñu xamal ne daal Ama Baldé ak Modou Lo daal lig ko laay day am na ñoo xam ne nii bu deful ndànk ñu ngi ko bëgg a peer njaay maanaam jaar ca suuf trois promoteurs daal la nu ñu yëglikaay bi xëy xamal ne nu daal ñu ngi ko bëgg na def leen nga xam ne ni daal moo di hold up daal di nangu combat ba ginnaaw ñoom bañ ca wutee ay renseignement yëglekaay bi di record moo xëy tey ñëw wax nu ko am na koo xam ne nii moom loo ci mën a dégg record xëy na xamal ne daal gaynde daal la ko tuddee moom Gaston Mbengue ak tam fi mu nekk nii na muy wanee boppam bu baax a baax ci ay combat yoo xam ne daal yu mag a mag la yoo xam ne mu ngi koy taxawal moo tax yëglekaay bi jàpp naal jàpp na ne Gaston fi mu nekk nii daal gaynde ga daa mel ni ki daal bàyyi gaaya dara fi mu nekk nii moom mun nga bëgg a lekk lépp yëglikaay ba moo xëy tey ñëw dinu wax lu mel ni ki noonu waaye man tey fa may tëjëx gomis mooy inna lillahi wa inna ilayhi raajihun fa may jëkki mooy sama dëkk de ak yaay kun doon wax ami fay di sët sama papa ñu gënoon ko xam ci turu xaan moom la yàlla borom bi jël ma koy ñaanal yàlla yàlla na ko yàlla yërëm te xare ko aljana ak sama beneen soppe boo xam ne sama xarit la woon nekkoon sama waay nekkoon ci Arabie Saoudite ñu daan ko wax Moodu Ngom te ñu gënoon ko xam ci turu xarañ bu Medina moom tamit dafay jóge yàlla na ko yàlla jéggal te xare ko aljana barke yonente bi sallallahu alayhi wa sallam jéggal bépp jullit boo xam ne yaa ngi si suuf si barke weeru koor wi voilà mu nekkoon revue des titres Babacar suñu làmb tey ci xëtam bu njëkk lam fa njëkkee rek moo di Ama ak Modou Lo mel ni combat bi yóbbu nañ ko ba décembre euh, mbirum Gàmbi mi Gàmbi moom fi mu nekk nii waxatuñ ko Luc Nicolaï daal euh, pare na ay plan fi mu toog nii. waaw xam naa daal euh, li ci liñ ci mën a jàngate mooy. Mhm. combat bi comme ni koy waxee rek ñépp ko bëgg. Mhm. amul ku la bëgguma boobu combat. Mhm. maanaam képp kuy dund làmb bëgg nga ñaar gis ñaari mbër yooyu ñu bëri. yàlla dogal na nag ci contre Luc Nicolaï Enco la nekk fa la mhm. taxawee ñu koy ñaanal yàlla noonu mu ko taxawale yàlla na ko di yeggaleeg jàmm mhm. loolu lañ koy ñaanal ba pare kantaan mhm. nag mois de décembre wala juillet wala juin wala lu mu ci mën a doon ah dañuy xool parce que lépp tamit dangay ngay xool date yi parce que actuellement ku ne xam na ne date yi fi mu nekk nii moom ku ne xam na ne circulation bu metti moo nekk au niveau du CNC pour problème mu date. kon yaakaar naa pour mu nekk lu jafe la. parce que yaakaar naa ne mois de juillet bi defe naa na ak yeneen weer.

maanaam bu ma la déggee mooy moom dafa jàpp ne. Modou Lo bëggul bëre Abdou Baaxul uh-huh. waaw loolu ba tey du mën a ko ko weddi laa gis-gisam la wax. Uh-huh. nit su waxee gis-gisam nag ah la mu gis la wax waaye ñun am nañ droit di suñ jàngat dama jàpp ne Modou Lo tey fi mu toll ci làmb su bëgguloon a bëreeg Ama Baldé non du ne waaw bay jox bay jël avance moom. Uh-huh. dëgg yàlla. bay def conférence de presse. ñu ne dit na waay muy ñëw jàkkaarloo. kon damaa jàpp ne Abdou Bakhoum xëy na nag dafa wax xalaatam ak li mu yaakaar wala li mu foog mais est mu foog noonu la demee man dama jàpp ne muur loo tey parce que nit ki tamit olof ne ne lëg loo ko bañ bañ bañ waxal ko guddi noppam ak mën a dawam yaa dégg muy Ama muy Modou ñoom ñaar ku ci ne fi mu nekk nii ku ci ne soxla nga combat bi mhm. ñoom ñaar ku ci nekk bëgg nga bëri ak sa morom yaa ngi dégg ak lu mënti xew rek euh, defe naa ne ñoom ñooñu nga xam ne ñoom Euh, euh, communication bi. Mhm. ñu di ko xoolaat am na solo trop. mais mhm. man Babacar dama gëm ne Modou Lo amul ku ko gën a bëgg a bëre ak Ama. Mhm. waaye Ama amul ku ko gën a bëgg a bëre ak Modou Lo. ñoom ñaar xëy na yàlla moo dogalagul combat bi am ci niñ ko bëggee. nit nag di nga bëgg dara. yàlla suñu borom dogale ko neneen. mais ñu ngi ñaan yàlla rek mu gaaw mu yéex yàlla nañ bëri. que le meilleur amiin dañuy xam ne nag combat bi du combat bu ndaw. ah voilà wallaay du mënta ñàkk. Ah, la nga wax ak ay dëgg. Mhm. Mhm. Euh, ki nga xam ne nag moo di Birame Gningue moom tamit daal dina ci àddu nee na fi mu nekk nii daal euh, benn face à face dootul amati tant que euh, régularisé wuñ moo di date bi. waaw loolu tamit defe naa bu a wóor. Mhm. parce que xëy na mënoon nañu di def ay face à mënoon régulariser yooyu combat mais la koy indi souvent ca dayoo mbër lay doon mais ñaari mbër yii ni ñu mel ak ni leen di topp ci mbool ak ni seen supporters yi bëgg combat bi. Mhm. nga di leen defal fas à face te régulariser woo ak yu mel ni ki noonu loolu da dul wóor parce que bu ci leneen amee ëllëg a mhm. xam naa biram foofu lay waxe kon defe naa ne promoteur bi tamit dina bàyyi si loolu xel mu jéem def le tout pour régulariser combat bi mhm. pour que ñaari mbër yi suñu def seen jàkkaarloo lépp ñu mën koo gérer ci côté sécurité mhm. lu mu mën a doon parce que ami combat bi moom lu ma la mën a xamal mooy nañu ñaan yàlla dugg ci bismillah rahmaan rahim jeexal ko alhamdulilah mais combat la ci biir combat yi Euh, ki nga xam ne moo di euh, Gaston Mbengue moom mu ngi fam taxawoon rek nee na daal dootul fayati moom mbër 100 millions ki nga xam ne moo di Balla Gaye 2 encaissé na moins de 100 millions ba pare amal na ko ñett avance. Mhm. kii di booy Niang 2 moom itam xam le ne na euh, moom waaw lam ko fay mosu koo fayeeku daal ci kiyam waaw mhm. ñun li ñuy njëkk def mooy félicité ko mhm. parce que li tax ñu koy félicité mooy yaakaar naa ne tey comme lu ma sa yàgg di wax rek te du dañ ma di ko wax mhm. exemple la si làmb moom Gaston Mbengue parce que li tax mooy naa ne dama koy faral di wax souvent ami 92 dëgg yàlla di taxaw làmb si côté yépp di tëgg ay combat yoo xam sax dañu koy dañ ne foog ne du mën a dem mu fexe ba nekkal ko kon defe naa tey su xëyaatee indi tax Boy Niang ak Balla Gaye muy bés boo xam ne ni tamit defe naa ne ñëpp dañ noonu loolu warut doo mën a ne ñu baree baree bari doxes na ko ba tàyyi sottiwul mais gis nga yàlla sottal ko ci kontam kon noonu mu ko sottale yàlla na ko réussir kantaan nag duma fayuma Balla Gaye cent millions ak Boy Niang li ma ko fay mosu ko fayeku mhm. loolu ba tey li tax duñ ci mën a sori mooy mm, seeni mbir bopp la mbirum biir néeg la loolu la mm-hmm. ñoom ñi fayante mm-hmm. ñoom ñoo xam li ñu fayante mm-hmm. mais l'essentiel que daal moom itam tëgg na combat bu neex a neex a neex Balla su dee da ko amel ñetti avance dafa naa moom leer na fi mu nekk nii mooy bombardier bi mooy boy ñaa bi ba ca des na ba tey rek ba tey ci biir néeg la <laughs> waaye naa daal Balla ko mbër la muy bëre defe naa tamit war na mën a yor sax lu ñetti avance ah, Gaston itam xamuñu ko ci wax yi caaxaan yaakaar naa su waxee loolu fu leer la ko teg li am ba des daal mooy tëgg na lamb ñu neex muy Balla Gaye ak boy ñaa solo ba tey rek ci mbirum Gaston Mbengue ki nga xam ne nag moo di rëg-rëg mu ngi koy interpeller rek euh, à ce que pour mu jox ko ki nga xam ne moo di Bombardier. waaw moom it daa bëgg a naru. Bombardier la bëgg fi mu a a mhm. jël guy gi. Mhm. ah ba tey terewul comme bu fekkente ne ña ko tëgg danañ ko nangul moom mu jëlaat beneen avance ci kaw seen avance muy mhm. waa CFM. loolu tamit waxtaan lay doon rek waaye xam naa daal Bombardier itam daa mel ni ci li ma dégg muy waxe tëjalul tam Gaston war na ko mën a tëgg parce que làmb yu neex a neex la parce que xale la ak mag mhm. xale bu war a jóg bëgg yegg tey fi Bombardier nekk mhm. ak mag moo xam ne yegg na maanaam mu nga au sommet mhm. defe naa ni itam boo boole de mën na neex am na solo euh, combat Sa Thiès Moussa Ndoye Forza ak Pakala yóbbu nañ ko datu juin euh, ki nga xam ne nag moo di Balla Gaye ak Bombardier ñoom euh, finalement juillet lañ leen a déclaré waaw ba tey loolu moo lay wan ne kon dat ba ñu jàppoon wala ba waa Gaston production jàppoon pour tëgg si Balla ak Bombardier kon date booba moo nekkagu moo nekkatul mais léegi date ba nag ba tey ñu ngi ko continuer di ko téye mhm. war ca tëgg Moussa Ndoye Sa Thiès Forza ak Pakala tamit muy ba tey li ma lay wax rek macha allah ci méritu Gaston nag parce que combat yooyu yëpp ay journée yu neex la macha mhm. allah am na solo combat mhm. Balla Gaye 2 ak Boy Niang journal bi def taxaw seetlu mu mel ni rek ki nga xam ne moo di Gris Bordeaux ak euh, Eumeu Sène di les grands perdants ci waaw parce que fi muy waxee mooy boo xoolee xam nga Gris ak Balla annoncé woon nañ ko ba mu taxaw. Mhm. ba ku ci ne am loo jotoon encaissé. Mhm. far yàlla dogal ay wax am ba combat ba mujj fa mujj lépp lépp doxee fa tàbbi géej Gris ñàkk combat ba. Mhm. Eumeu Sène bi mu bëree ak Lac de ba pare. diggaat nañu ay wax que ni bëggoon nañu mu bëriwaat ak Balla. mais itam mu mel ni loolu mujjul sotti ba xaw ma daa ay jafe-jafe dugg na ca. ba far Balla tey nangu bëri ak booy Niang. alors nag su amee kon ñoom ñaar vraiment ay perdant nañ ci côté boobu. mais boo nag di itam mënoo lekk lu dul sa wërsëg ah. te itam dafay baax sax lii am nii. comme tey Ama de Modou Lô Balla Gaye 2 Boy Niang loolu dafa baax ci làmb day dundalaat làmb day indiwaat leneen même Bombardier ak kii bi terewul Bombardier euh, rëg-rëg ak guy gi nañ bëree mais Bombardier tamit bu mënee bëree ak rëg-rëg mhm. ak yeneen xale yoo xam ne ñu ngi fii ñoom Yékini Senior ñu ngi fii mhm. ñooñu ñëpp ay xale ay ñoom Malick Niang ñoom ama neex mbër yooyu yëpp mhm. maanaam mag ñi dañ leen war a tàllal loxo pour ñu bëree mais muy tourner autour cinq personnes en fait. voilà wala non loolu du ko neexal quoi parce que lii am bërki démb dafa neex si làmb muy mhm. Balla Boy Niang mhm. Modou Lo Ama vraiment kon ñoom ñaar ñii. Mhm. muy Gris ak Eumeu war nañoo mën a jéem a tamit taxal loxo yeneen xale yi. waaw may leen doole may leen doole. Garga Mbossé ngi fi war na mën a bëre. Yékini Junior yàgg nay dëkk ki ki nga xam ne moom mooy Gris Bordeaux mhm, dëgg la loolu lépp a ngi fi mhm, am na solo ah. bu jógee foofu rek euh, yàqute yaa amoon fële ca arène nationale ba tey rek ñi nga xam ne ñoo di waa CNG ñu ngi ciy àddu ñoom daal ba tey rek euh, jëlaguñ ci benn ndogal euh, lañ jàppoon moom lañ jàpp ba léegi mooy sanction cinq lutteurs yooyu noonu waaw loo ci mën a dégg daal xam naa ne comme ñoom ñoo yoreen làmb ji ah te la am ña ko mm-hmm. def la ma gis mooy ci maatay lañ ko teg mm-hmm. la ma waxoon laay wax rek man ami sama wax du ci soppiku nit moom mu mm-hmm. defee ngir maatay da koy wan kuy def ngir maatay ni ñu koy jubbantee rek mbir yi jeex parce que encore fois du ñu dañ di ko wax arène nationale c'est pour les sénégalais ñaa ngi dégg souvent damay dégg ay nit naan waa làmb euh, euh, mérito wuñ lii wala làmb du luy développé am réew dañuy wax lu leen neex rek parce que li tax ñu koy wax mooy wala ma jàpp leen ay complexe mhm. parce que li tax mooy làmb cosaanu réew mi la. dëgg la mérito na am sax lu raw arène nationale. Mhm. yaa ngi dégg. Mhm. dafa fekk ne nag saako pombiteer des fois nga jënd ko ame fekk ci bu nëpp boo xam ne boo ko seppiwul sànni ko mu yàq yi te des yaa ngi <laughs> am parce que tey mbër yi ñu la limbal fii tey muy Yékini muy Tyson ak yeneen muy Bombardier ak yeneen ñi nga xam ne ñu ngi seen biir mhm. carrière tey tey ma maa lay wax fii ne na ay chef d'entreprise lañu ñu ngi fay ay ay salaire te ci lamb lañ ko jëlee Gaston Mbengue ma leen di tëgg wala Luc Nicolaï wala sëñ Moudou ñaa wala sëñ wala Fallou Dieye seen ak keneen ku ci am nga loo yor di ko doxal ci dëkk bi di fay ay ay salaire kon encore une na ñu bàyyi di wax kàddu boobu làmb mérite na Santiago Bernabéu ba Santiago Bernabéu Bernabéu la <laughs> ba ca ba ca Madrid làmb mérito na loolu <laughs> waaw parce que ay nit a fay dem te ay noble fay dem di ko seetaan dafa fekk nag des fois mu am ñu ñu rax ñu ñu rax nag lu ñu leen teg day dagan mhm. waaw am na solo ba tey rek combat Modou Lo ak Ama Baldé mu mel nii rek euh, da doon euh, révélo euh, ñetti promoteur waaye kii nga xam ne rek moo di Luc Nicolaï moo ko daal di gàddu rek waaw Luc daal mhm. moo mujj def hold up ba ah waa loolu moom maanaam moo lay war ne kon la léegi nit ku nekk sa wërsëg rek mhm. ñu ko ñaanal mu yegale ko ak jàmm rek moom mhm. li parce que tamit jàmbaar la daal mhm. vraiment ndax combat ko bëggul woon ñëpp la xëy na rek ci ki nga xam ne moo di Gaston Mbengue ce lion qui dévore tout maanaam daal combat yu bëri yoo xam ne ay combat VIP la moom moo ko tëgg muy Balla Gaye 2 euh, B52 Sa Thiès Moussa Ndoye Boy Niang Balla waaw loolu moo lay mooy ki fi ma ubbee sànq fi ma wax ci moom sànq rek dañ koy féliciter rek mhm. parce que li la wax rek am na mérite ah, moom Gaston suñu papa la suñu nijaay la donte des fois nag affaire yi xaw a tàng mhm. mais du tere kani li mu def ci làmb fa faw noo mënee su ko effacé wax dëgg yàlla wax mhm. dëgg moom lu li ma la sànq loo bañ bañ lëkk faw nga nangul ko guddi na ko mën a daw Gaston Mbengue moom tey defe naa ne monument la si làmb en tant que promoteur parce que mbër yu bëri nga gis fi tey ñu ci baree baree bari lu baree bari moo ko def si ñoom maanaam moo tëgg seen ay combat kon defe naa bu tëggaatee lii itam ñun du nekk lu ñu jaaxal parce que lu tax mooy lu maanaam da ko fee tëgg si làmb mhm. kon moom itam yaakaar na lii du ko lu du lu ko jaaxal lu lu mhm. di ñaanal yépp bépp mhm. euh, metti loo xam ne day arrivé souvent mais nag àddina tëdd noonu ndax euh, yàlla moo ko wax parce que bakkan bu ñam dund da nga ñam dee mhm. a ah, fële ci ak yaay koo xam ne ni mhm. sët la ci sama papa ñu koy wax euh, ami fay ñu gënoon ko xam ci xaan ami seen sax la sant mhm. moom moo décédé bëri ci démb fii ci la Dantec ñu yóbbu ko ci ak ko fa ma koy jaale doomu ak yaay yépp rawatina borom këram di Youssou Diouf ak famille bi yépp maa ngeen koy jaale ak tamit ñi sant seen wala boog doomu ak yaay su ma limi dinaa juum ndax ak yaay ñépp ay mbokk lañu di ko jaal ay waajuram muy Abdou Abdoulaye Abdou Sène ak yaayam Ndey Ndour ak mhm. ay mbokkam yëpp. Mhm. ay gorom ay mhm. doomam. ku mu mënti doon tamit maa ngi la koy jaal moom. Euh, xaan moom di ñaan yàlla yàlla na ko yàlla xare aljana muy lu méttee métti parce que tamit dafa dee ndaw ki ci des mooy sama benn xarit boo xam ne wax dëgg yàlla lamba taxoon ñu xamante demoon takkantay xarit mu nekkoon fii ci Medina ñu doon ko waaye xarit bu Medina voilà mu nekkoon dañ tuddoon Moodu Ngom dëkkoon Mbàkke nekkoon demoon yàlla dafa mu nekkoon fii di dëbal di liggéey ba xëy takk ndiggam dem ba fu ñëw Arabie Saoudite di fa liggéey nekkoon fa chauffeur camion di dawal mhm. yàlla def mu génn àddina ci accident ci ndaw te semaine passée rek ñu ngi déggante am mhm. kon moo lay wax ne àddina bi suñu yeboo rek xam nga mhm. yéenante jàmm te itam di waxante rafet te rafas raxas xol yi ami tàppee ko comme ni ko maam Dambax doon waxee moo gën quoi parce que li tam li tax mooy yàqalante wala waxante lu ñaaw mhm. wala soxlonte du ko fi jaar parce que mbir yi dafa gàtt dafa gàtt trop mhm. maa ngi ñaan ñooñu yàlla na leen yàlla yërëm xaral aljana mhm. xarañ moom maa ngi koy jàll waa groupe baax rawatina le président Massamba Dieye ak waa génération xarañ ak soppi Modou Lo yëpp mais di ko jàll askanu làmb yëpp parce que ba nu xamante maag moom ay at la te dara ñaawul mu nekk xale bu yaru yàlla na ko yàlla jéggal xare ko aljana barke yonent bi sallallahu alayhi wasallam di la bégg di nuyu képp koo xam ne yaa ngi suivre ami mm-hmm. jërëjëf Babacar groupe Equivox yëpp ñu ngi jaal ñooñu nga xam ne rek ñoo daal génn àdduna fi la ñuy daal di nag di leen jox di daje ëllëg incha allah ci beneen numéro jërë ngeen jëf